dal leen ak jàmm mbokk internet yi ab jéye xew na ci wàllum couvre-feu bi way takk der yi ñoo dajee ak ab journaliste buy liggéeyee ca Touba TV dal di koy duma ay duma yu métti lu jëm ci wàllum couvre-feu ca diwaanu Touba way takk der ya wàccoon ca mbedd ya ngir dëggal ndogal bu président de la république jël ngir dàkkala bépp dox ci diggante 20 ba 6 heures du matin yooyu lee takk ñoo dajee ak ab journaliste buy liggéeyee ca Touba TV di wuyoo ci Mame Awa Ndiaye dal di koy dumoo ay duma yu métti ci jamono joo xamante ne ma nga doon amal ab reportage foofu le ca xayra jamono ji ñu wax ak yéen moom journaliste boobule ma nga ca loxoy fajkat ya ca kër docteur ba ca ndaamaatu ca Touba ci fàttali moom maam Awa Ndiaye journaliste Touba TV bile amoon na ab autorisation bu mu yoroon ci moom nekk ab kayit woo xamante ne préfet bu Touba moom moo ko signé ngir jox ko rek sañ-sañu def liggéeyam ci waxtu woo xamante ne tere nañ ko ci dox donte yoroon na boobu autorisation spéciale de circulation boo xamante ne préfet bu Mbàkke moo ko signé teewul benn yoon woy takk yi daal di koy duma duma yu metti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 parmi d'autres ba bu ëllëgee lu mënta am man ma xàmmee ni kii moom ma def lii xàmmee naa waa ji ku ko tegoon parmi mill personnes ma xàmmee ko sama caméraman tamit xàmmee na ko mu tam mu daal ñu dóor ko daggal ko saaga ndey waa imaf ñu yéegoon ci balcon bi gaa ubbi ne gaaw leen dugg fii ñu daw dugg ci biir pour mën a toog affaire sedd ñu may ñu ndox ñu doog a xam fan la nekk parce que lii la ñuy dafa metti suñ la dóoree day doo bi day metti tellement que yow doo mën a réagir li ngay yor na carte de presse yor sama maanaam luy wane yor sama autorisation ma préfet léegi lan la bëgg tamit. Eh, eh, est-ce wax nga ko sa kilifa yi aussi. sama kilifa yi ñoom ñëpp wax nañu leen ko ñu ngi saisir jéem a saisir ministre de l'intérieur parce que tamit lii man exemple laa si parmi mes